Voilà, L'objectif de cette rencontre, c'est d'organiser un forum, mmh. un forum euh, qui a comme thème jeunesse et développement local. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a senti la nécessité vraiment de la contribution de ces jeunesses-là pour vraiment relever les défis du moment. en tant que jeunes on a essayé donc d'organiser cette conférence-là pour au moins permettre à ces jeunes-là de savoir réellement euh, nos vraiment face aux nouveaux défis qui gangrènent également le département Voilà, ce qui, que, ce qui nous a motivés, c'est parce qu'aujourd'hui, le constat est alarmant. On a vu que les situations ne valent pas vraiment aujourd'hui dans le département de Nioro, dans tous les secteurs, dans le secteur éducatif, dans le secteur sanitaire, infrastructure, ça reste beaucoup de choses. nous, en tant que des jeunes euh, du département, on a jugé nécessaire de se regrouper dans un cadre de concertation afin vraiment euh, de participer, de par vraiment nos esprits, de faire également notre préciser d'ores et déjà que j'ai aucun regret de partager avec vous cet après-midi. Même si c'était à Nioro, j'allais essayer de m'arranger pour faire les déplacements. Et je suis certain que la prochaine fois, peut-être que ce sera à Nioro, ce sera pas ici. Et aujourd'hui, votre public, je suis désolé, n'est pas du tout genré. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. mais vous devez vous battre pour cela. Aujourd'hui, si vous vous rendez au Rwanda, il y a, plus de femmes que d'hommes à l'Assemblée nationale rwandaise. Et dans le gouvernement rwandais aujourd'hui, c'est de femmes. Et ceci, ou bien cela explique. Le développement qu'ils ont aujourd'hui a été porté fondamentalement par les femmes. Et aujourd'hui, l'histoire a démontré que dans toutes, les, dans les nations développées, dans toutes les nations les plus développées, sont celles qui donnent une place prépondérante aux femmes et aux enfants. Ça, c'est primordial. Si aujourd'hui à l'Europe, les hommes ou bien les, enfants et les femmes ont du mal à s'en sortir, dites-vous bien que le développement, c'est pas pour demain. c'est fondamental. Même au sein de votre famille aujourd'hui, vous pouvez avoir une maison, mais vous ne pouvez pas avoir un foyer où il y a une certaine joie de vivre. C'est comme aujourd'hui, on peut acheter des plaisirs, mais il est difficile d'accéder au bonheur. Le plus souvent, le bonheur, il est très relatif. Mais des plaisirs, on peut l'acheter. On peut se rendre dans de belles euh, contrées, on peut se retrouver avec tout ce que veut, au moment on le veut, où on le veut, et rester le plus malheureux sur le bonheur, est très, très relatif. Donc et je vais directement emprunter le coach. Charles disait qu'on n'était jamais bien assis sur la tête d'autrui. Raison pour laquelle dans toutes mes communications, je me donne une liberté extraordinaire pour enfreindre le protocole et vous parler dans la langue de Côte d'Ivoire. C'est une lourde responsabilité, mon Qu'est-ce que tu vas faire L'essentiel, ce n'est pas le nombre de mandats que tu auras. L'essentiel, moi, qu'est-ce que de ton mandat mandat nag dafa am mandat boobu dañ la koy jox am na mandat boobu kenn du la ko jox yow yaa ko moomal sa bopp man tey jii su ma liggéey li ma ciy def su ma temps bi may sacrifier nii di ñëw fii nga xamante ni dara fekk ma ci. Hmm? dara fekkuma ci cuun woon na ma sax ma woo yow ñi boo demee fenn di conférence lan lañ lay jox ak yéen man su ma sañoon tey man maa leen di jox <laughs> mais yéen du ngeen ma jox je vais rien prendre si je pouvais vous aider dama leen di aider et cela va garantir votre indépendance parce que les politiciens dañ leen di xiif loo ba ngeen xiif ñu leen di leen jox pour nga mën a l'aide véritable doit aider à tuer l'aide loolu la si couturé wax donc euh, loolu laa bëggoon wax par euh, la solidarité des générations vous êtes 15 communes aujourd'hui ne ngeen Nioro la en miniature mais intercommunalité loolu moo tax mu am solo qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble aujourd'hui chacun a un poten a une que l'autre n'a pas qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous pouvez partager aujourd'hui pour faire bouger les choses lan ngeen mën a def ensemble tey li waa di wax naan l'ère des destinées singulières est révolue sa à dire que nga dem nii rek échappé solitaire et boo demee ci dëkk yi léegi loolu moo am xoolal seen politiciens ñoo dàq kër ci ci dëkk ba ñu dëkk. seen xoolal rek li ma la wax loolu gàcce la sax déjà bi muy politique bi bu dee fa nga dëkk yaa dàq kër mooy gàcce la ah loolu tam problème la. donc les instruments de mesure du développement am na ko wax léegi c'est-à-dire il faut que ñu xool ban contenu la ñuy jox développement lan mooy développement ah. donc loolu question la boo xamante ni da ngeen di dem ci élection locale organisez-vous cette plateforme là recevez les candidats waxuma ne bu leen am candidat de man su ma sañoon da ngeen di jël la les mairies de vos localités mais recevez les candidats mais bala ngeen leen di recevoir il faut ngeen liggéey bu baax sur un état des mooy ki nga xam moom moo yoroon boobu ba tey moom ak conseil municipal ñoom bilan la ñuy ñeneen ñi proposition il faut faire la différence proposition boo xamante di c'est faisable waaye du ñëw rek bu ngeen ma falee bu ngeen ma falee keroog laay déglu benn discours am ñu 83 mais discours boobu 83 loolu laa dégg politiciens yi en 2019 même discours su ngeen ma falee may waroon ko bàyyi depuis si la mu ne la tonton aada di ko fooye ci tar ci rajo bi sax lañ ko waroon bàyyi donc parce que tout simplement c'est de c'est des incantations politiques qui n'ont rien parce que réalité politique dafa am loolu moo tax président il est venu au pouvoir en 2012 avec yoonu yokkute mais ana yoonu yokkute il est élu sur la base de yoonu yokkute après donc daf ko fi teg ñu ko dem plan Sénégal émergent hmm? donc loolu aussi c'est important donc leneen li mooy la promesse républicaine mooy ñoom école yi leen génne tey wóor na leen ne école boobu amatul moo tax seen doom yëpp a ngi ci école privée école bi génne te l'école publique est par extraordinaire le lieu de la démocratie parce que dafay dajeeg ay fils de doomu ministre doomu député sa doom comment yow mi nga xamante ni jaaf ngay jaay sa doom commencé décomplexé wu. lan moo tax tey jii rapport bi ñu am ak député tey xoolal rapport bi ñu am ak ministre xoolal rapport bi ñu am ak président tout le monde est content de serrer la main du président de serrer la main ministre de serrer la main député wala diw sama xarit la mais et après. c'est un serviteur c'est pas un roi affaire bi du nguur donc l'État doit être perçu doit on doit arrêter de percevoir le pouvoir comme un instrument d'enrichissement illicite de règlement de compte te boobu ba tey loolu moo am malheureusement enrichissement illicite xool corniche bi ñan ñoo ko dëkkee moo ñu fi amoon pouvoir lan la ñu ci ëppale ñun dara donc loolu aussi kenn ci saalum saalum yi nag am na bi xaw ma am donc beneen bi c'est donc li ma la communalisation intégrale wax nañ am na ko wax léegi communalisation intégrale man damaa jàpp ne acte trois de la décentralisation esprit bi dañu waxoon ne c'est pour avoir des territoires viables et compétitifs porteurs de développement durable Wakunguna tey lan mooy viabilité en quoi Wakunguna aujourd'hui est compétitif En quoi Wakungun aujourd'hui est porteur d'un développement durable Dites-le-moi. Anta. Amoul. Donc le problème, ce n'était pas d'aller vers une communalisation intégrée rapidement. L'ignorant régler la question subsidiaire, c'est le financement des collectivités locales. Fan Moi, la question que j'ai posée tout à l'heure, le budget de vos communes, ça, vous lan mooy dem ci fonctionnement lan mooy dem ci investissement mais su ma ko nan ngeen di contrôler mënu leen contrôler te au nom du budget participatif dañ leen war a boole léegi ci élaboration ak mise en œuvre bi nga xamante ni moom mooy les budgets donc la question principale qu'on qu'on va se poser et je vais terminer par là mooy est la jeunesse doit être une force ou bien une faiblesse est-ce qu'elle doit être une opportunité ou bien une menace loolu gouvernants yi rek ñoom ñoo ko mën a définir réew da ngay am vision da ngay am idéal da ngay am boussole fan la ñu bëgg a dem ñii fii laa leen di jógee point A ban fan laa leen bëgg a mooy li ma wax léegi nan la ñuy def tey nan lan yan mécanisme ya suñu localité yi la suñu pouvoir yi teg pour Papa Djibril Fall am un rapport très fort avec les couleurs nationales nan la ñuy def tey ba nga xamante ni man sama citoyenneté du koy mettre à mal ci samay actes yu may posé nan la ñuy def tey ba dinaa rusa sànni benn kaas boo xamante ni naan naa ko qui est devenu le sport national d'ailleurs hmm. naan kaas café Touba rek sànni hmm? donc nan ngay def tey jii ba am la promotion du volontariat mooy lan mooy sa redevabilité nan nga koy nan nga koy questionné jamono bu nekk lan laay def lan laay jox man su dëkk ba mu gën a baax ba mu gën a ñoom ba mu nekk havre de je pense que ces questions là des na ba tey tontooguñu ci keroog dama dem ci ci banlieue ñu ne seen armée yi dafa fees ma leen bu leen jàpp mukk ne ay mort naturel ngeen am da ngeen di xool journal France 2 su ngeen koy seetaan da ngeen di gis mag yi bu leen wanee ci supermarché yi ñu yor seen i pousse-pousse ni di dem di def seen ay achat cent deux ans cent trois ans quatre-vingt-dix-huit ans ñun fii ni ñuy dee c'est pas normal lan moo ñuy rey plateau médical bu bon kenn ku yëg ci sa bopp dara tey dem leen ngeen organiser leen journée de consultation gratuite yo leen gynécologue di ngeen yéemu ci yàlla jigéen ñi dinañ ko songu ba seen yaram di daw am na jigéen ñoo xam ci àll bi tey mosuñoo gis gynécologue mosuñu leen consulter gynécologie alors que au même moment yow politicien bi nekk Dakar sa jabar moom chaque instant moo ngi dem seeti gynécologue bu ko dara jotul sax day rek def bilan après ñooñu jëlaat leen yóbbuwaat leen yéen ci naaj bi parce que indil nañ leen bus caravane fii université ngeen dugg ci. def ñu jox leen des sandwich ak t-shirt mais rebellez-vous yéen rek yéen a ko mën a changer bàyyi leen ñu leen di nappe seen bureau yi convoqué le bureau ba nga ñëw mu dugg ngand ngandulu euh, xaar la ci biir secrétaire bi xaar la lool sa salle d'attente c'est une mystification c'est rien. s'ils ont besoin de vous ils n'ont qu'à faire le déplacement arrêtez bu ngeen demee ci bureau yi d'accord maa ngeen dem seeti leen pour discuter mais ñoom ils doivent même pas avoir le temps au bureau pour recevoir des gens surtout pour parler de politique gis nga moo tax tey c'est très bien fait pour vous ñëwuñu <laughs> je vous remercie dañuy faral di wax suñ dëkk comme que cuñ carrément bi Sénégal bu pour ay références yu soo dëkkee ñoo rek les références yi ñoom sa kanam nos grands-parents ont toujours répondu non devant les manques de dignité ou bien les de considération aujourd'hui ñun ñu fi toog ñëpp di wax Pape Djibril Fall ñun ñu wax suñ ko jëlee mettre ko en pratique on va être le premier au niveau national mais le constat en est que c'est nous qui critiquons mais c'est nous qui votons pour les politiciens c'est une réalité qui Alors la jeunesse de Nioro, il est temps qu'on se lève et qu'on dit que moi qui vous parle, je suis politicien, mais je dis je suis plus activiste que politicien. Je suis pas une politicienne qui suit une personne ou qui dit que si mon leader dit ceci, je vais faire ça. Non, quand il s'agit de défendre ma jeunesse, je le fais. Il était une fois, la forêt prenait feu et tous les animaux partis, courir pour s'échapper de la chaleur émanant de ce sauf un petit aliment, un oiseau. L'oiseau survola jusqu'au-dessus du feu et commença à cracher là-dessus, tout en ayant l'intention de l'éteindre. Vous savez ce que les animaux ont fait Ils commençaient à se moquer de nous en disant Mais quoi tu coûtes une petite crache pour Vous savez ce qu'il a répondu Il a dit que mes petits, je suis conscient que mes petits crachats ne peuvent pas éteindre ce feu. mais s'il y avait d'autres petits crachats, la force peut s'intéresser à ça. Le département de Nioro a ses propres réalités historiques et environnementales. Donc, chaque génération, comme l'a dit, chaque génération a mission. Soit l'a accomplie, soit l'a trahi. Donc, nous, nous sommes conscients que aujourd'hui le développement de Nioro nul ne peut le régler nul ne peut le manger à notre place donc aujourd'hui il est temps de s'unir et de donner les mains et de dire que aujourd'hui le développement de Nioro c'est par nous avec nous qu'on va le faire tantôt aussi vous avez parlé de la colonisation Mais il y a une autre forme de colonisation que nos formes dirigeants ont encore fait, vous m'excusez du terme. C'est acte 3 de la décentralisation. La décentralisation, comme vous disiez, est une technique d'organisation politique qui consistait à créer sur les politiques locales prime dans de la loi. Faute de quoi, manque de respect et de rigueur du travail sur Si on prend actuellement deux villages de leur dire que vous êtes une commune, de compétences et de moyens, là y a un victime du sous-développement du département de Nioro. À 90 pour cent, nous, la jeunesse nioroise, on est responsable de ce sous-développement. Je m'explique. Parce que les politiciens dont on critique chaque jour, chaque jour, c'est nous, la jeunesse nioroise, qui les accompagne. Ils ne sont pas là parce qu'ils savent que la jeunesse nioroise est fâchée contre eux. Mhm. Et malheureusement, c'est nous encore qui courent derrière, ce qui est déplorable.